maa ngi nuyu aussi sëñ Axma Mbakke ndaxte ku ñu jàppale la kuy sonn la ndaxte nekku fi rek pour dox moom day dem ay réunion di représenter coalition Adiana ci ni mu gën a rafete maa ngi nuyu aussi Abdoulaat Lo Abdoulaat dafa nekk xale boo xam ne bii bu nangoo liggéey la bu nangoo sonn la du yendal du fanaanal te itam dégg na ndigal tey jii itam def na loo xam ne lii lu ma neex la mooy mu ñëw dugg ci parti bi nga xam ne bi la moom laa taxaw di alliance pour la paix et le développement APD loolu deful lulut gën maa yombalal ànd bi ñu ànd bu dokkee ci biir parti bi ànd ak waa parti bi bu def lulut ñu yokk suñu doole donc Abdoulaye je te félicite c'est de la grandeur ce que tu as aujourd'hui parce que compagnonnage da ngay seet la ko gën a mën a defar rek nga def ko mu dem parce que man en ce qui jàppale leen rek laa bëgg a def pour jox leen benn sook ak benn force politique boo xam ne bii di ngeen ci mën a taxaw ba bu ëllëgee yeneen xale du ñuy ñëw di toog seen kaw ou di leen féete ci kaw ngeen am sook am appareil pour que ëllëg ngeen mën a tekki ci biir réew mi ku nekk respecte leen soxna Ndeye fii bi ma fi doon ñëw dama toogoon ak son excellence monsieur le président la république ñu toog ma ni ko président nit ñi ñu ngi wax naan waa Touba dañ laa bañ ñenn ñi dem nañ ba seen wax du dugg sax di wax ay du murit di wax wax yu nekk ma ni ko bàyyi ma ma dem Touba su ma demee dinaa la woon ne li la nit ñi wax ci waa Touba dara amu ci ndaxte bu fekkee dañuy wax ci affaire murit Serigne Touba amul kenn ku mu wax ne wali del ma ne diw mooy sama taalibe doomi Serigne Touba yi fi nekkoon sax kenn mos leen cee dégg ñu ni kii taalibe sëñ bi la ou bien kii du taalibe sëñ bi parce que boo nee jëbbalu na bàyyi nañ la ak Serigne Touba moom mooy régler problème beneen bi ci dollee muy murid yi di waa Touba seen diggante ak seen sëriñ doxloowuñ fi kenn soxlawuñ fi président Macky Sall soxlawuñ fi Thierno Lo soxlawuñ fi keneen ñoog sëñ bi rek bi ñu tollee amul benn xalifa bu nekk Touba boo xam bi mës ngeen koo dégg muy wax di tudd président Macky Sall jox lu ko ca naq rekk lu ca dem parce que taluñu loolu parce que ku ci nekk am nga sa benn taalibe boo xam ne bii. boo soxla woon 60 million dana dugg sa biir kër jox la ko te du bëgg kenn xam ko kon problème bi fi amoon bi ma ñëwee dama leen woo yéen ñëpp ngeen taxaw ñu def fi ay ñetti ndaje keroog fii la ñu yendu keroog ma fi recevoir ay nit dem fi def fi ñetti ndaje liñ doon laaj nii rek lan dama ñëw ak sumay caméra ne leen wax leen ak président de la kenn du leen censurer ngeen taxaw xamal ko ne ñun amuñu problème yooyu nit ñi di wax suñuy problème mooy Touba dafa nekk dëkk boo xam ne bii dañuy ay citoyen nekk fi am fi ay mbootaay yu fi nekk bëgg ku leen jàppale am fi ay sancaan yu fi nekk bëgg ku leen defal ndox ak ay làmp ca fa ñu nekk am fi ay xale yoo xam dañoo bëgg ku leen jàppale ku ñu liggéey ku leen ko defal ñu ànd ak yow ku leen ko defalu nag buñ la watee buñ la sanctionné c'est parce que dañoo bëggul ci ni nga yore seeni mbir du problème mu sëriñ du problème mu tarixa problème mu def ci askan bi la te loolu moom la waa Touba waxoon ñu jël ma dolli woon ci ne leen man ñëw naa fi de man na Lo li ma man ci sama alalu bopp dinaa ko def mooy defal leen ay formation ba ma jógee tam la ma waxoon yàlla suñu borom dimbali na ma ba def nañu formation posé nañ fa si calebasse de solidarité formation yi bi ñu ko defee soxna Ndeye Lo def li nga xam ne moom laa bëggoon ci affaire formation mooy su ma la formé dama bëgg nga formé yeneen nit bi ñu ko defee noppaluwul bëccëg du guddi waxtu wu nekk ma nga dem bi fi aide mi ñëwee ba formé leen ba pare moom moo jël relais yi commencé di formé jigéen ñi di formé ba forme na ba dem saam yabal formé ji fa ñoom bu sa xuma chaque jour que je fais su ma woowee du ma wax problème mu boppam daf may sonnal sonnal sonal ci quartier tel ma ngi may xaar mbootaay teg ma may xaar il faut ma dem pour former ji te man ki ma mën a àndal mooy ki nangoo liggéey képp koo dégg ma am problème ak Thierno Lo ou bàyyante nañu mooy nit la koo xam ne kii dafa ñëw du jaar ci dëgg di jéem a naxaate te du liggéey pour askan bi kooku ko def rek ma tàqali yow parce que man li may def fu ma joxee suma kàddu bëgg naa koo sàmm ba mu sotti ku may àndal bëgg naa mu nekk àndu ngor àndu nawle àndu fayda ak àndu gëm yàlla loolu mooy li ñu fi boole tey moo ma boole ak waa Daaru Musi yi nga xam ne ñoo nañ ma ci te Adja mii toog ma koy nuyu parce que Daaru Muxti la nekk am na benn mouvement bu mu nekk mais bi mu déggee ne damay ñëw Touba moo ma woo ne ma damay ñëw Touba parce que looy def dama cay ñëw dama cay jàpp moo tax mu ñëw ànd ko ak waa coalition Adiana muy profité pour wax leen ne ànd boobu na ngeen ko dëgëral def ko fu nekk ci biir Sénégal giir Daaru Muxti ak fu nekk parce que yéen yaatal rek laa leen mas a wax kon dee leen yaatal incha allah la jeunesse de Touba maa ngi leen di félicité bu baax a baax parce que gis naa bi ñun bi ñu lancé slogan bi àjjana sur le terrain yéen yéen a ko jëkk lancé ci majorité présidentielle ñëpp commencé di ko copier ngeen def ko Touba. seen vidéo yi ngeen def yëpp ak quartier bu ngeen mën di dem teg naa ci sama bët Dakar di ko def la même chose Louga di ko def la même chose. Kolda di ko def fépp fu coalition àjjana nekk ñu ngi vidéo yi def nañu ay àjjana sur le terrain parce que nit ñi dañu naxoon Sénégalais yi nan leen président Macky Sall nit ñi bugguñu ko ñun ñu ni danañ ko wane parce que dañu dem ci terrain bi dugg ci biir marché yi dem ci garage yi fekk nit ñi fañ nekk ñu seet ba xam est-ce que nit ñi danañu yuuxu est-ce que nit ñi danañu xas fuñ fu mas a dem nit ñi dañoo toog dégluñu ñu waxtaan ak ñoom convaincre leen wan leen ne leen le président Macky Sall xoolal mënta régler problème waa Sénégal yëpp parce que loolu yàlla suñu borom mayu ko kenn bilan la am bilan liñ ci xam ñun mooy actif ak passif loolu mooy lu baax ak lu bon mais bi ñu xoolee bilan li baax moo ëpp li bon muy benn ñaar gisuñu kenn ku nekk ci senegal di laaj réew mi nga wax ñu waxi programme ah man de Thierno Lo teguma ci sama bët gisuma kenn ku ma wax ne njàngale mii doxul nii laa koy defare mbay mi doxul nii laa koy defare xale yi amuñu liggéey nii laa koy defare gisuma kenn ku ko ci wax programme bi ma gis du programme boo xam bi borom dëkk bi bëgg na ko du programme boo xam ne maam Thierno bëgg na ko programme boo xam ne ci la ñu yare mooy programme mu saaga xaste ñàkki teggin di dajale ay nit ak di xuloo ak di xeex ñun xamuñu loolu li ñu xam mooy ku bëgg réew mi di liggéey pour réew mi président Macky Sall foo laal am na lu mu fa def même bu lépp sottiwul am na lu mu def ci fànn yépp beneen bi doole ko ma bëgg tax ngeen woteel ko mooy moom rek moo fi nekk candidat boo xam ne bii bu falwaatee du fi nekk di def ay affaire pour bëgg ku ko falaat déedéet danaan man tàmbali woon naa am naa juróom ñaar juróomi at yu ma mën a liggéey pour bàyyi fi loo xam ne lii bu ma fi jógee Sénégal daañ xam ni juróomi at yi li ma fi liggéey moo ëpp la ma liggéey juróom-ñaari at gis li ma leen di wax nii du ay problème mu par parloo mais ku fi jógee boo demee sa kër na tëdd nga xool nga xam wax bii est-ce que yanu na maanaa ou bien yanuwul maanaa est-ce que ñeneen ñii laaj réew mi est-ce que duñ bëggaat ñoom amaat beneen mandat te boo bëggee benn mandat ay pression day tegu ci sa bopp lu neex waay lu neex sàmba lu neex dembare ngay def pour bëgg ku la falaat ca ba pare dañuy ñëw di wax naan ah man de la ma doon wax bokkul ak lima ma fi fekk man di il faut ma def état de lieux pour ñoom ji yóbbu réew mi ci kanam doo dem fenn parce que la nga doon diggee xam nga ni munoo ko te xam nga ni ñun ñi xam réew ni muy fonctionner xam relation internationale nu mu demee xam lan mooy géopolitique xam les différents courants yi entouré un président de la république xam na ni ñoom li ñuy digg munuñu ko munuñu ko def kon nañu bàyyi di nax askan bi xam nga ni Sénégal bu ñu toogee ba yenn nit ñi di toog ne dañ koy diriger kooku ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg le président Macky Sall bu ngeen ko falee réew mi dina am jàmm bu ngeen ko falee li ñu commencé def ci liggéey danañ ko mën a continuer ak moom pour que ku ci nekk sa nekkeen mën a changer te itam jàmm réew mi ci foofu la nekk kon nag na ngeen ci gën a jàpp xar ci seen tànk tubéy pour que bu résultat yi génnee Touba ñoo xam ni seen coalition bii ba ngeen ci duggee ci la affaire yi changé parce que liggéey bi ngeen di liggéey ci biir dëkk bi man gisuma kenn ku ko fiy liggéey kenn ku fa gis ku ko fiy liggéey amul te ma di leen xamal benn affaire fu ngeen taxaw def fa marche àjjana sur le terrain fu ngeen def formation président Macky Sall gis na ko ci guddi ga la ko gis parce que vidéo yi ngeen di def ak yëpp dama ko ko yónnee mu di ko xool di ma ci tontu kon seen liggéey teg na ci bëtam coalition Adiana daj na Sénégal gépp léegi ñëpp xam nañ ne liggéey bi ngeen di liggéey fii Touba moom la gars yi di liggéey Darou si ñii di ko liggéey Louga ñii di ko liggéey Bakel ñii di ko liggéey ci Dakar banlieue bi fépp fu ñu dem waa majorité présidentielle dañu wax nañ yéen waa Adiana bu ñëpp defoon ni yéen président Macky Sall day falu au premier tour na ngeen continuer pour gën jéem a dem ci gën nit ñi gën a waxtaan ak ñoom pour que bu ñu àggee le 24 février incha allah ku nekk na nga jël sa carte nga dem wote te boo wote ba pare nga dem ñibbi xulooloowuñu kenn xeexloowuñu kenn dañu bëgg ngeen wote ci jàmm ñibbi ci jàmm parce que dëkk bi yooyu xaju fi bëgguñu ko fii bëgguñu ko fenn ci biir Sénégal na ngeen yéen am ngeen droit jël seen carte ne kii moom a neex kii laa koy jox ngeen jox ko ko bu ko defee incha allah rabi le 24 février ñu gagné élection yi te dama bëgg a profité occasion pour wax leen benn affaire suñu ànd bii ñu ànd du ànd boo xam bii dafay yam le 24 février man nit su ma ko jàppee. dama bëgg ànd boobu di continuer di dem di continuer dem muy gis boppam ci biir ànd bi kon ànd bi du àndu campagne électorale àndu campagne la pour jéem a jàppale xale yi continuer di jàppale jigéen ñi bu soobee yàlla soxna Ndeye Lo danañ la continuer ngay continuer di former Touba di former di former di fa dem ba kañ la ñuy xam fii lañ mën a yem parce que yàlla suñu borom doo nekk di def lu baax. nga fas yéene koo continuer mu di la arrêté te formation yi boo gisee yéen ñi koy def ak yow mi koy def ak ñun ñi ko ànd ñëpp bu ñu dee yàlla suñu borom daf ñu koy fay parce que mënoo dikk ci nit nga jox ko métier dimbali ko muy am lu muy tedde ba pare yàlla du la ko fay kon nag na nga ci gën a góor bu baax a baax a baax te ngeen yaatal gën a seen biir ngeen nekk benn xam ne nit ku nekk. liy wër sa gëm te yàlla suñu borom tudd ko kenn mënta fexe ba du ko jot nañ ko boole nag ak gore boole ko ak fayda parce que ñun dañuy ànd mais ànd bi ñu ànd ànd fayda la ànd ngor la ak àndu dignité ak nangoo liggéey moom lay doon léegi nag ñi fi nekk ñëpp mun ma citer seen tur mais yéen ñëpp gis naa leen xamee naa leen nañu xam ne ñaan yàlla suñu borom ci barki Serigne Touba ak yenn Ibra Fati yaakaar ji nga xam ne am ngeen ko ci ñun yàlla bu mu tas yàlla ñu yàlla dimbali ba ñu fal le président Macky Sall ba mu ràññee ne yéen ñii defuloon ngeen ko mu fay leen ko ba mu mat sëkk ci barke Serigne Touba.